ah yow yo, what's up, what's up? Hi, everybody all around the world. Your guy, your man, your host, uh, Malo. Tey ñu nekk ci beneen numéro bu uteeg bon Fodel Katché bu ñu xam mais juste extended benn benn benn benn bonus par rapport ak Fodel Katché bi mais date de saint parce que même team bi la quoi en par man parce que fa laa bokk. voilà tey lii euh, particularité bi mooy euh, dañuy survoler la hip hop la culture hip hop ci boppam. par rapport ak euh, déjà parce que hip bi gis gis nañ ni c'est un culture boo xam ne dafa am dix élément dix éléments am benn divise ba pare am dix-huit principes waaw dix-huit principes yi booy xool foog naa moo gën a récent moom dixième élément moo gën a récent parce que dixième élément am ñoo ngi ko ci euh, intégré le 16 mai su ma juumul le 16 mai kii. astafurlah le 21 avril 2016 le 21 avril mooy déclaré kii 21 avril 2016 lañ ko intégré euh, ci kii bi ci ci culture hip hop mu doon mu doon le dixième pilier euh, te le 18 principe boobu yàgg na xaw na yàgg c'était en 2001 2001 le 16 mai man sax damay wax ni sax si bu ñuy xool journée hip hop. comme Sénégal la ñuy naan journée hip hop Galsen et cetera journée hip hop Galsen amul hip hop Galsen amul hip hop une universal moo am boobu c'était en mooy le 16 mai boobu xam ne déclaration de la paix ne dañ ko yóbbu fa la UNESCO ko avec des des des gars mel ay Kera Swan xam nga ay ñoom ay Pavel Janofedavenot gars yooyu ay ñoom Mac Daniels ñoo ñoo ñoo approuvé yeneen activistes yeneen pionniers yoo xam ne ni approuvé nañ loolu noonu quoi bon euh, devise bi ñoo xam nañ ñëpp xam nañ ko mooy lu ñu naan peace love harmony and having fun mooy devise bi bon les dix éléments nag bon comme ni nga ko xamee booy xool dafa am de fës foofu foo élément fës foo élément après moom yeneen cinq ci dooleeku mu am yeneen benn last bu ci doole mooy bu ma sànq date bi kat yu xam nañ ko mooy DJ yi euh, break dance human beat MCing wala rapping up into street language street knowledge street entrepreneurialism ak euh, beatboxing boo xam ne dañ koy naan human human human beat quoi voilà yàlla def muy dox parce que tamit boo gisee culture boo gis dans le monde il faut mu structuré wu structuration boobu noonu ñu canaliser ko mooy tax ñun ñu di reconnaître nit ñi à part de là parce que tey bu ñu ne euh, street language tey su ma ne su su ma amee nu ma waxee pardon da ngay jël lu terme simple quoi boo jël le terme beat beat ci hip hop nga koy dégg quoi beat boo déggee rap ci hip hop rek nga koy dégg quoi donc ce sont des choses yoo xam ne ni hip hop moo ko moom culture bee ko moom ku ko ku ko kii rek ci culture bi nga bokk ko loolu mooy tax ñu naan diw bokk na ci culture bi wala bokkul ci culture wala bokkul mais culture bi dafa am leen loo xam ne ni donte DJ sa ñoo njëkk ñoo ñoo commencé culture bi parce que au temps boo xool ñoom ñoo doon def les block parties teg seen i seen i seen i turntables euh, def euh, lu ñu naan euh, brick beats mooy dagg ñu daan daggu coupure yooyu ci yeneen son yi comme rock pop et cetera ci benn boucle boo xam ne ni mooy moo retourné nit ñi di fecc après ñoom euh, comme ñu ci bëri ñu bëri woon ay jamaïcain ku ci parce que moom from Jamaica bon toasting bi day nekk ci moom donc ci loolu lañ inspiré woon dans drop wala speed ay ñu koy waxee ay ay verbs mooy words over beat bu daan buñ daan play bon noonu noonu moo tax affaire yi dem ba gars yi dem ba formaliser ko ba ñu am ñoo xam ne ni ils sont là uniquement pour bind ay wànq di ko teg ci kaw vidéo ba xool biir euh, les mun naa ne les premiers beatmaker du ñuy beatmaker c'est parce que ñoom dañ naa concocter quoi ay son teg boo xool bon. tey jii nii beatmaker ñoom ñooy faral di def loolu ba DJ yi ñoom ñoom ñoo commencé mais jamono jii nii beat maker ñooy faral di defar beat yi di ko jox rappeurs yi rappeurs yi di ci play et cetera parce que tey boo xoolee euh, par euh, abus de langage soo ne hip hop rek da ngay xalaat directement la musique quoi parce que moo ne au devant de tous ces éléments yoo xam ne ni euh, énuméré naa ko sànq mais du yoon nag du yoon parce que c'est une culture c'est un ensemble bon man jëre comme boo xoo Sénégal fii nii hmm, comme bu jëlee graffiti fii un temps boo xam ne amoon na fi tool trop ak ñoom les misérables graffiti ñoom kii mu tuddati euh, Demograaphe. sama graph from Koungheul sama ju Koungheul waaw ay bëri na ak waa gëb ils étaient des excellents excellents clients ay taggeur ko waa gëb yee ñoom bàyyi nañ trop dañu waroon di def pour man dañu hip hop bi dafa waroon Sénégal fii rek waxuma la fii mais Sénégal waroon am benn musée comme on a les si comme maison de culture urbaine waroon nañu fexe ba foofu noonu mu am ay euh, ay musée yoo xam ne juste pour di exposer ay tableau tagueur quoi ñuy taguer et cetera parce que booy xool autant fii Sénégal am na album yoo xam ne boo leen xooloon rek sa sa xel day dem ci loolu comme boo jëloon frère ennemi bu Humana Bibson seen image dañ ko bindee et cetera kooku dama est doxa dem squad ñoo ko defoon parce que écriture xaw nañ nuroo ko aw bonk leeruma mais moom la may jox quoi bon loolu graffiti la euh, dan danse bi danse mooy b-boying b-girl wala euh, break dancing boobu tamit euh, dafa naa am ay ñoom gasira ay ay ay ay ay concours fii concours fële mais ba tey exposé wuñu ko quoi parce que boo xoolee aux aux États-Unis sax dañuy faral dem ay concours danse gisoon nañ fi à l'avènement des Jabawoo Kids et cetera xool tamit àdduna bi tey jamono ji booy xool est-ce que du asiatique ñoo ci gën a taxaw ci fecc beeg yooyu noonu mais bon xëy na seen seen tax quoi euh, daal armes yooyu peut moo tax gars yi gën ci ay ak yooyu noonu bon léegi léegi DJ yi booy xool fii Sénégal dangay gis MC bu yéeg sur scène wala mu def concert doo gis DJ en background loolu c'est c'est c'est c'est pas normal normal parce que DJ boo xool même à l'international lu lu lu gars yi def def concert même Super Bowl bi bu mujj bi xam na ne c'est récent da gis DJ background quoi loolu c'est ça la culture quoi parce culture bi loolu mu moderne dafa am yoo xam ne ni ce sont les les bases yoo xam ne ni dafay kii daal mu tudd euh, dafa war a des quoi boo xool beatboxing bi tamit dafa dafa xaw a réer parce que boo xool euh, gars raar la ñuy def ay freestyle wala ay ay battle yoo xam ne gars yi bon lu ci bëri ay cypher sa même cypher sa normalement sax waral ay saay su beat baat si xam nga saay su gars yi waaj di beat baat kii di beat baat ñu xool kan moo ci gën wala tam waaj di beat baat gars di di rap over over over tamit eh, day day faral di dafa faral di raar ci ci ci ci ci gars yi même à yeneen yi comme ay ay street language boobu moo ngi développé bu ba parce que language street language boobu noonu le fait que di jël. Euh, jargon hip hop bi son dëkk yi bon jargon bu Sénégal mun na uteeg bu Mali ak bu Côte d'Ivoire bu France mun na uteeg bu bu états bu États-Unis la ci biir bu Atlanta mun na uteeg bu Detroit mun na uteeg ak bu bu kii mu ci euh, Los Angeles wala ay ñoom Canton langue bi si yooyu noonu mën nañ utee quoi parce que tamit dëkkuwaay selon fu nga dë fu nga dëkk day xaw day xaw kii daal mais mais loolu noonu boo koy booy déglu son yu ci bëri da ko ciy retrouver quoi da nga ko ciy retrouver donc loolu moo moo ngi développé moo ngi développé boo xoolee. Hmm, tuddati swing entrepreneurialisme da ngay gis ni tamit boobu tamit moo ngi développé tuuti parce que da ngay gis ni sont les les acteurs hip hop ñooy doon ay entrepreneur et loolu ça fait plaisir parce que da ngay gis ku ku teg benn business xam muy muy jur ay affaire nga ci créer ay emploi di fay ba pare xam nga di di di tamit di wan ñeneen ñi naka lañ koy defee loolu loolu c'est fait plaisir quoi dafa desagum fii Sénégal dafa desagum mais boo xool à l'étranger am na fa doole boo xoolu buuba ënkër bi léegi bàyyi na sa ënkër moom ci benn jàpp moto bi mais génn ci loolu dem ci leen tey moo ngi dox bu baax a baax même affaire de am ci yum moo ngi dox a baax aux États-Unis pareil parce que gars nañ ci move bi ci septième art bi foofu tamit moo ngi dox bu baax a baax à l'exemple de Fifty Cent waaw ah, gis nañ ak yeneen a ah, ak yeneen gis nañ fi naas jënd na fi benn start-up informatique xam nga à coup de milliard gis nañ ko fi loolu yëpp ci ci la quoi te fii am na benn fii fi def awa di moom mun naa citer exemple waaye eh, awa di Simon Autant Matador gars dañ fi dañuy def yu mel noonu quoi ak ñenn ah, bëri nañ gis nañ fi wax gadu xam nga loolu tamit xam nga ci la bokk bëri na ah, bëri na bëri na mais des na quoi war na gën a mën a développer euh, gën a gën a jëm ci kanam quoi. voilà ak léegi léegi léegi léegi ñun fii nii suñ delluwaatee ci hip hop fii nii dañuy faral di di di di déborder des fois parce que sànq ne woon naa en tout début euh, kii que hip hop dafa am 18 principes 18 principes yooyu bon après nañ def benn émission boo xam ne spéciale sur ça dañ ko ciy toj benn par benn du début à la fin du premier jusqu'au 18e principe parce que principe yooyu ñoom ñoo lay tënk quoi bon parce que tey. suñ jëlee l'exemple de la religion wala l'exemple de la de la constitution du Sénégal tey am na yoo xam ne ni soo ko buggee def da ngay naan constitution bi may na ma ko soo ko naru def pour yoon dal sa kaw dañ naa yoon bi constitution mayu la ko waroo kaa def c'est pareil avec les peuples les dix-huit looloo tax sax ñu indi ko parce que c'est juste c'était juste pour damay tënk rek pour juste pour euh, wax gars yi l'image négative bu ngeen am ci hip hop bu loolu hip hop gën na kawe loolu quoi am na image positive boo xam ne hip hop da koy véhiculer te lépp loo xam ne nii ci àdduna bi wën nga képp loo xam ne ni day fexe ba kenn du gis race bi race bële religion bi religion bi et cetera ci demee noonu riche bi pauvre bi et cetera y a des principes yoo xam tënk loolu ba xam ne nit ki bu bu bu yemee ci loolu rek ñëpp tout le monde dañuy retrouver wu quoi sans problème mooy waral tey nga jóge fi dem defi festival aux États-Unis wala nga dem festival au Japon moo waral tey ki mu tuddee ci kër gi de Kaolack ñu demoon fii Japon apprécié moo waral tey faare fëri di dem biir France Olympia def concert affaire gars yi apprécié et cetera bëri na bëri na bëri na exemple yoo xam ne mën naa ko joxe yu wane ni principe yooyu noonu bu ñu tënkoo ci loolu on va se retrouver à travers le monde moo waral gars a di dem di parce que lan culture bi ñu bokk bi la quoi te culture bi mujjantal bi mooy les la devise bu moo waxoon sànq par rapport ak peace love xam heaven fun parce ñun Sénégal la ñuy faral di wax naan jàmm ci la lëpp xaj quoi donc jàmm boobu noonu bu ñu amul jàmm boobu noonu duñu duñu duñu duñu mën a kii duñu mën a évoluer duñu mën a def dara boo xool tey problème problème muy Russie ak Ukraine mu ngi bugg a sonal nit ñi parce que du jàmm quoi donc jàmm rek a gën daal te jàmm amee rek mbëggeel coofeel la mbëggeel boo amee xam nga après dañuy da ngay bëgg di bëggalaate quoi. buy bëgg di bëggalaate nag jàmb ji day continuer di law waaw donte des fois seytaane surug ci ak demee mais yow yaay fexe ba loolu mu bañ laa mu bañ laa dominer daal moo tax des fois su may dégg nit ñi naan non artiste tel artiste tel warul warul warul rap ci mbëggeel man daf may jaaxal man daf may daf may trom bon pas traumatisé mais daf may daf may jaaxal quoi damay naan gars yi est-ce que ñoo ngi xalaat lu ñuy wax quoi lan moo tax ñu bëgg naan artiste bi warul wax ci rap ci ci mbëggeel et cetera te yow sa devise hip hop culture da nga nangoo bokk boobu à moins nga ba ñu dund culture bi culture da la wax waxu mbëggeel quoi. waaw da nga war a love xam nga xam da nga war a love each uh, each other yaag sa sa sa kii nga sa prochain te sa prochain mun a doon jigéen mën a doon love yaag sa xarit love xam da ngay bëgg ni te yàlla tax parce ñoo ngi ñoo ngi bëgg suñuy sëriñ ak ñeneen love boo xam ne da ngay bëgg jigéen boo xam ne affaire de mbëggeel la ak loo xam da ngay bëgg say waajur say doom et cetera that's love léegi gars yi bu ñu jëlee benn ci love boobu ñëw teg ñu noo waroo teg love loolu du yoon ko man loolu dam koy wax dama koy dama koy wax waxaat gars yi nañu nañuy bàyyi xel yooyu quoi quoi ay contexte non contexte amul contexte amul contexte amul hip hop peut-être xam euh, nu tuddee ci euh, environnement bi mooy définir yow lu ngay bind lu ngay teg ci kaw biir peut-être loolu environnement bi waaw donc nit nañ bàyyi nit ñi libre par rapport loolu noonu quoi donte euh, dañuy bañ dérapage su kaw nga tënku ci principe kon da ngay da ngay daal da da ngay style def loo xam ne ni yow yaa ngi ci yoon quoi parce dafa bëri ay ñun fii nii suñu daal seen dafa bëri ay dañ koy dañ koy contexte pas contextualiser dañ koy conceptualiser ba te dañuy fexe ba créer benn affaire boo xam ne loolu du loolu quoi du loolu te dañuy fàtte ni hip hop musique rek musique rek ci boppam nu mu commencé yeneen xeetu la gars yoo xam ne ni tey nit ñi booy déglu musique yooyu dañ naan lu tax nga déglu musique musique bu feeg la et te musique yooyu noonu ci la gars yi inspiré jël ko defaree affaire ba tey ñu am suñu rap quoi am suñu hip hop musique bii ñuy déglu tey di bëggee quoi moo xam bu hardcore beeg bu horrorcore beeg bu bu underground beeg bu mainstream boobu yëpp daal the same trap music xam nga all li yëpp ngeen di dégg yooyu yëpp ci loolu la jógee loolu mooy source bi quoi booy xool tey premier son bu génn dam koy dam koy faral di wax dam koy waxaat gars yi dégg premier son bu génn ci hip hop dans l'histoire de la du hip hop c'est en 79 Sugar Hill Gang ñoo ko génne benn trio te son mu ngi tudd Rappers Delight mu firi ko ci olof bu leer dégguma anglais mais firi ko ci olof bu leer mooy nam namu rappeur te son bi boo parcourir texte bi da ngay gis ne affaire de boire lañ ciy wax ak affaire de wine nag affaire de caga affaire de affaire de yooyu noonu kon gars bu ñu naan ay pop dafay jóg pour ay xeet non non du loolu culture bi lépp a ci yow yaa xool lu la intéressé lu la ñor nga jël ko jëfee ko. waaw moo xam ci ci ci ci ci domaine ci ci ci disque yi quoi disque élément yi dafa am benn élément boo xam ne dama koy ko dama ko faatoon brosan mais bon dañ def benn numéro boo xam ne dañ élément bu ne from premier bi comme nu ma waxee ci principe ci déclaration de la paix bi noonu lañ defee ay numéro yoo xam ne ni dañuy jël élément benn par benn DJing bi ba ci hill hill fin bi Pilfin Wellness moom mooy last bi ñun ñu def ci ñu def ci ay ay waxtaan ko xam dañuy gën a dañuy yaatal tout truc bii dañ doon survoler pour pour juste euh, am une idée de de par rapport lii ñuy def nit ñi xam ne ni bon on est là partage lu ñu jot a xam lu ñu jot parce que a fait des recherches boobu léegi we still in the yàgg na yàgg us te si been a ñoo ngi fi ba léegi xam nga kon war nañ am lenn as tuuti boo xam ne war nañ ko te war nañ ko partager te tamit di xam ne nii ñun lu ñuy wax ne am na ñoo xam ne ay junni junni nit ñoo ngi ñu ñoo ngi fii ci dëkk bi fii ñoo ñu ko gën a xam quoi peut-être dañ dul wax walla dañ dul exprimer wu et cetera voilà du question de gën a xam gën a kii juste partager par rapport à som ba da about bi knowledge we xam nga loolu rek la quoi juste dañ koy donc ku bëgg jëriñu jëriñu parce que dañoo tënku ci hip hop bi quoi hip moo ñu sant lool te loolu lañ nekk di def quoi waaw yee beneen beneen beneen yoon quoi incha allah joxante rendez bu beneen yoon ci beneen numéro yi gën a yaatal man la woon that was me your host Mr Malo Mohamed Malo Mar aka MK Fanes yeah see you beneen épisode incha allah